concrètement lan la parti bi def pour sénégalais du concret. non concrètement ce que je peux dire que man euh, mon parcours est atypique parce que lu wax atypique parce que j'ai eu la chance vraiment jàng bitim réew def euh, école d'ingénieur en France dem étage def MBA liggéey Banque mondiale amoon ay salaire bu baax mais j'ai tout laissé pour rentrer chez moi. Mm-hmm. alors que d'habitude c'est le contraire qui se passe nit yi dañuy jógee Sénégal dem foofu toog mais ma dem naa foofu am fa liggéey bu baax bàyyi lépp ñëwaat Sénégal parce que je pense que loo mun am bitim réew fii mooy sa dëkk donc da nga war a defar donc c'est pour ça qu'on est rentré ici mm-hmm. quand je suis ici nag c'est vrai que euh, j'ai créé des entreprises j'emploie des gens donc ñu may employé bon c'est vrai que plus de 80 pour cent sont des femmes pourquoi euh, la population yoo xam da nga et je pense que tey Sénégal su bëggee avance Sonko mise beaucoup sur les femmes. Mhm. comme je dis tout souvent rek ne ni góor yi moom su amee xaalis tax ñaareel. mais les femmes su ñu amee xaalis dañ koy dugal seen biir que d'habitude c'est pour ça on investit beaucoup chez les femmes mhm. et aussi euh, bu politique euh, on a beaucoup euh, vraiment aidé les gens juste sur l'année on a formé plus de 2000 femmes et on a donné plus de 10 millions de financements e ça, c'est sans compter ce qu'on a fait entre 2018 et 2020. Parce que 2018 et 2020, association La Yoroon doon jàppale vraiment les jeunes et les femmes. Mmh. donc euh, ñu ngi essayer de faire notre part vraiment pour jéem a développer dëkk bi politique bi nag après lu dugg mais taxul tamit ñoo ngi doon def lu ñu doon def avant mooy vraiment di jàppale nit yi sur le plan social. Mmh. et nous tamit gëmuma di maye xaalis gëmuma. Euh, vraiment euh, loolu gëmuma ko c'est pour ça on forme les gens. Mm-hmm. même les financements on a dañuy indi moitié financement bi ñu ni finance ñu indi seen moitié donc on contribue juste à la moitié. Vous avez des partenaires? on n'a pas des partenaires c'est juste sur fonds propres. donc li may def sur fonds propres la. ok donc amuma partenaire am ku may jàppale xaalis bu ma liggéey bu ma am. amul ko ku nekk sa ginnaaw. amul kenn ku nekk sama ginnaaw nga a joxe ay yàlla am na ma wërsëg bu ma may. parce que yàlla def na. ma bitim réew ma liggéey fa am lu mu fa denc ñëw Sénégal tamit am lu mu fi liggéey am ay loolu tamit maam lu mu siy investir si Sénégal yi parce que je pense que il faut que ñu fexe ku nekk su defee lu may def gën naa dëkk bi dina avance mais le problème c'est que chaque ku nekk da xalaat sa bopp ku nekk soo amee sa richesse yaa ngi jënd oto 80 millions 100 millions. ak ay kër ak ay kër. ay terrain. waaw donc euh, man je crois pas gëmuma loolu jënd yenn oto yu cher yi wala yenn vie pour man war am as tuuti loo xam nga see dund lu nga jàppale si nit yi. donc sama philosophie la sama gëm-gëm lu mais je pense que il faut que ñun ñëpp jàpp si pour changer réew mi alors euh,